maa ngi tudd Birahim Diallo eh, ñu gën maa xamee ci leaderu Aïssa Kassam eh, dëkk Parcelles Unité 1 eh, liggéey Dakar te nag maa ñëw taxaw ci seen kanam parce que jël engagement bu wóor ànd ak sama waa gox di présenté sama yaay Ndeye Diouf ak Oumba Fall Ousmane Fall ak. tonton Omar di dalal tamit sama yaay Adja Mare bu mouvement si bi jot na euh, waxtaan bi rek dafa basé ci leen parce que dañuy nekk ci quartier nekk nekk ay xale suñu gox yi tëllu Cees yi tëllu bu gisee ku mel ni Abdoulaye Dièye tàlluñu loxo dañ duñu duñu duñu hésité pour mën parce que dañoo gis li mu liggéey ci Cees mu tëgg te ñun tamit ñu sonn ci kaay ma defal la ñu sonn ci te xaar mu ñëw te gëm naa ak Ablaye dañuy ànd defal suñu bopp loolu moo waroon tey nag ma engagé wu topp ci ginnaaw liggéeyal sama gox pour ñu mën a def tout pour am ndombal tànk ci mairie yi ñu jëm élection locale yi ñu jëm du yomb nag mais gëm naa ni liggéey lépp base la te di talal loxo waa Thiès di taalal loxo sama waa koñ te xamal ni lépp lu ñuy def ci fulla lañ ko demee ak fayda gëm naa waaju ñu àndal ci fulla fayda ci lay dox di ko taalal loxo di taalal loxo ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi topp sama ginnaaw ndax liggéey bi di mën dëgg maa koy def incha allah bu ñu ci yeggee dinañ gis ni dinaa ci ay yaay yu mat yaay ay xale yoo xam ne am fulla ak fayda ci li ñuy def te incha allah rabbi dinañ gis façon politique beneen bu bu génn parce que digaate bi dafa doy yoon doomu tàng te zéro ko dafa doy Thiès dafa laaj tey ñi fi dëkk di fi yeewoo xam li seen gox di dox ñu teel ko suñu bopp fajal seen saafara bopp loo moo tax ñu ànd ak euh, waa ji di Abdoulaye Dieye mouvement si jot na ñun waa zone parcelle ñun waa zone parcelle euh, ci sama tur Birame Diallo ak Adé Diouf ak ñëpp ñu ma àndal ñu ngi topp ci ginnaaw tàlloo ko loxo loxo tàllal ko loxo pare tamit pour liggéeyal Thiès di dalal bu baax a baax baax suñu yaay ak euh, waa bureau bi nga xam ne ñoo déplacé wu mm-hmm. uniquement pour ñëw fekk si lii maa ngi jaajëfal ñëpp liggéey bi nekk Thiès danoo bari lu tax ngeen taamu Ablaye waaw Ablaye moo ñu doy parce que bi mu créé mouvement bi léegi sa fait même pas trois ans te dañuy gis tout récemment rek def na benn liggéey bu baax au niveau euh, prison bi yàggul loolu parce que ñun dañoo nekk Thiès yor suñu bët dañ naan gan boo ko boo ko boo ko wóoluwoo mën nga tëj limam sa gémmiñam noppam ak bëtam waaw ba pare nag teg fi entreprise yoo xam ni jeunes Thiès ñu ngi ciy liggéey ampagaay fi rek sa glace mi ngi fi ci vacances y a milliers de jeunes yoo xam ne ci lañ liggéey ba fay sama inscription defal seen bopp kon gëm naa ne kooku ku ne la kaama jàppale ñu liggéey Thiès dalay doy pour nga ànd ak moom. sant di kontaan ci seen jotaay bi di ko rafetlu lool la jotaay kilifa lañ ko fekk fi nag ay ndaw yoo xam si ndaw yi dynamique lañu ndax léegi Sénégal moom kenn mënut fee loo xam si du ànd ak politique kon tey bu fekkee ne da nga doon ci association di yëngatu ci ASC ba tey jii seen xel xool ko mel ni Ablaye Dieye di jeune comme yéen ngeen da ngeen a bëgg a jot jot def politique jàppale ko. loolu yaakaar naa ne lu rafet la di leen tàllal loxo leen wax soyé nekk kontaan nañ ci initiative bi ngeen jël pour bëgg a àndale président Abdoulaye Dièye liggéey ak moom ci ñu mos la politique kon daf ñu neen daal Moustapha ñu gën ko xam ci Tapha le jeune di membre mouvement Siggi Jot na bi nga xam ni le président Abdoulaye Dièye moo ko jiite tey nag dana ñëwoon Parcelles ku xam Parcelles xam ne gox la boo xam ni dañuy faral naan sancaan bu bees la nga jëm ci élection yoo xam ne élection locale la te ku xam paase nga xam ne tey dëkkuwaay yi tas na tas yoo xam ne soo fi wargee dajale dara daa laaj nga ànd ak nit ñi actif daa laaj nga ànd ak nit ñoo am nañ personnalité daa laaj nga ànd ak nit xam ne xam nañ gox bi sekk nañu nit ñi jàmm ñu rencontré ki nga xam ne mooy Bira Bira damay wax ni fonk koñom ak bëgg koñom moo tax boo nee Bira rek cosaan nga ciy teg te cosaan ba mu xewee ba léegi yàggul waaye ñun ñëpp wax naa ko suñu portable yi sax Bira Cosaan lañ teg ndax fonk ko ñëpp ñu woo ko tey waxtaan ak moom ñu ànd ba ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement bi mu engagé wu nangoo dugg si mouvement bi nga xam ne mooy mouvement si bi jot na fii nag am nañ confiance si moom am nañ fa gëm-gëm si moom ndax lan koñ bi maire yaa ngi nii bi ñuy ñëw fekk nañ fi ki nga xam ne moo jiite femme fekk nañ fi ki nga xam ne moo jiite jeunes yi fekk nañ fi ki nga xam ne moo jiite jeunes yi nga xam ne ñooy jeunes yi jigéen yi fekk nañ si ay joueurs yoo xam ne si ASC bi lañ nekk ñëw pour engagé wu Anglade Birane jox ko bopp jox ko ngeen pour lan fi nga xam ne moom la président Abdoulaye Dieye jëm mu ànd fa ak ñoom loolu moo war a doon tànk ñu ànd si ak ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement bi di sëñ yaay Mariam Diop xaaral ngi noonu ak ki nga xam ne mooy bàcc ba ak responsable bi nga xam ne mooy responsable Amazone Abdoulaye Dieye yi leen delloo ñu loolu moo war a doon tey tànk yi